ndewoy ndewoy say seymane ndewoy alaykatim ka mangala yaara jërë ngeen jëf mbokk Sénégal jërë ngeen jëf mbokki aduna amaat mbekté contenté bu baax baax ci ñuy suivre ci Lutte TV comme ni ñu ko defee chaque jour rek di lan topal lamb ak ci biir mo waral tay ñu déplacer wat ñu wat fi nga xamanté moy écrit wala sét ki nga xamanté moy mooy coach bi di Arona Sall yor fi ay mbeur ñu nekk ci écrit bi liggéey ñu gis saa bu xale yi amee combat rek mu daj ci coono bu méttee méttee métti taxawu leen bañ am ndama ah. moom lañ sees tey fas yéene waxtaan ak moom fan la écrit bi toll ana combat yi ndax mi ngi ñëw wala ñëwul ak tamit ñoom la mooy seen jafe-jafe ci écrit bi dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu dugg waxtaan mais lu jiitu loolu bas ndox bi nga xamante ne moo ñuy accompagner dañu jàppale ci émission bi muy ndoxu Casamance 16 ñaanal ndox la bu nga xamante ne bii set na sell na wóor na neex na gaaw na baax na ci yaram baax tàngoor baax tamit ci sportif yi moo ñu jàppale ci émission bi Arona Sall maa lay nuyu di la siyaar coach. waaw mais gannaaw baatu onze billahi mina seytaan rajim gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci bi alayhi salaatu wa di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama waajur góor fa mu nekk kenn fu mu jugee ak bépp waajur boo fa nekk rek suñu borom yëgal leen. taat leen ci yërmandeem di ñaanal sama waajur bi fi nekk nag ci borom yàggal ko fi loolu tam fekk suñu njariñ waaw di sant sama sëriñ suñu Babacar Si di sant sama xalifa suñ Babacar simon Mansour mu yag fi lol tan ak wer ak bepp xalifa dine naka écrit wala wa bon sante yalla bala mo wax nak len dina la wax ay bat parce que ku yokul da ngaa wàññi yow da nga yok parce que nga xala nga may yaay dox ay djegu ci lamb billahi wallahi talaay seen liguey na trop ci lamb parce que xam na mo bon nga nek journaliste ñu la may joxe nga cër bi yaangi liguey di mention spéciale lool mom addu ñepp ko wax té man su su su rafetee rek ñu rafa na té vraiment fi nga tek sa loxo moom bu ko wacc ñu ñaan suñu borom defal la jamm defal la sutura bañ lay dégg fenen ak fenen ci barke yonent bi alayhi salatu wassalam ikri bi nakam wa wa sant yalla rek ñun amuñ leen dul ikri walo wa parce que dañ fi nekk nak ndem ci yalla ñom bay Balla ñom Alioune sey ñom la ñoom ndem si yàlla ma amul la ak père alim fi nekk ñu ñaanal suñu borom defal ko jamm yokk wér gi mu yàgg lool te ànd ak parce que ñooñ ñooñ ñooñu laa fekkoon ikiri ak ñoom. ñu nekk samay kilifa. ba yàlla dogal ñu jël ikiri bi dénk ma ko. kon man ikiri bi lu ma ci def rek dem si ñooñu. samay kilifa yu baax lañ. rawatam nag bi fi nekk boo xam ne kii équipe lépp la jël na ma yaay sama doom yaay sama lépp jël lépp teg sama loxo kon loolu cër la. tey mu nekk suñu kilifa gu baax a baax a baax a baax su ko neexoon. du ko def mais dafa jël lépp lépp lu écrit wàll mu jël teg sama loxo moom boo demoon ci moom ne ko lu ma soxla ci bi daanaan demal ci roon waaw kon loolu sant yàlla te moom su ma dooleel woon kon lii du ma am wala su ñëw jël ay jël li ma déggoon man ko père ngi nii mais vraiment dama dénk xale yi xale yi nekk ay xale yoo xam ne vraiment ñu neex a parce que làmb gis nga lu ci nekk làmb coono gi moom njëriñ li mais vraiment xale yi loo xam ne bëgg nañ xam la jox nañ ma cër bi xam la moo tax mu dama dem ba jeex daal dama ciy dem ba jeex te ñu nekk ay xale yoo xam ni te vraiment ay xale yu am jom am fulla nangoo liggéey. Mm. nee na làmb. doo tudd benn écurie doo tudd benn écurie wala ñaar écurie te doo écurie am nañ ci cër ci làmb. doo tudd benn écurie wala ñaar écurie te doo écurie wàll. Mm-hmm. mooy cër. bu ñu demee làmb dañuy am fulla am fayda. Mm-hmm. man mi ànd ak ñoom tamit bu mu demee làmb damay xam ni fulla ak fayda moo tey bisu bisu bisu dee la quoi. Mm-hmm. dañu def lu ñu war te loolu sant yàlla. doo tudd benn doo tudd benn ikir wala ñaata doo do ikir wala kon loolu sant ñu ci def ay jéego uh-huh. mais yor xale yi nga xam te ne ku ci nekk rek macha allah toll nga ni nga war a toll mel nga ni nga war a mel ci popularité ak tamit euh, ci mbooloo ak tamit euh, ci comportement ci gabar yi ndax boole xale yi yëpp nekk nekk benn nekk seen kilifa di leen tàggat ter bi war a am dëgg-dëgg ndax mi ngi am sa diggante xale yi. est ce que xam nga ni ikir bi booy seet ñaar ñoo koy réglé muy muy muy muy muy Alioune Seye ak Lac de ñoo koy réglé problème bu amee ci biir sax problème du amee problème bu amee ci biir sax ñoom ñaar ñoo ñooy woo booy ne kat nii ak nii surtout ma muy Alioune Seye du problème boo fu ñëwee tam looy looy de man maa mujjee dama ñu fekk ñu liñ dëkku seen biir yàlla moo dogal moom moo moom moom xale yi jox ko cër te bu bu problème amee sax problème sax am bi sérieusement parlé mais bu dara amee rek Alioune moo ñëw lijjanti ko. ko la dëggeer kon kon mention spéciale ñoom. man rek léeg-léeg rek mooy sama problème mooy Alioune Seye dafa jóge ay dynamique victoire yu doy waar. a bëre. mais làmb mënu la ñaar yu mu jóge pare ko chaque jour ko jëfee mi ngi saal. chaque jour ko jëfee mi ngi saal. te te te te te te bu ñu ko wax saala tax. boo xëy suba da ngay dem géej mais li koy dundal da koy def. nga dëgg te gis nga ko. booy jox ko cër. booy bu ñu xëyee suba dañuy dem ci moom entraîné ji. parce que man moom dañuy déggante. bu ñu xëyee suba dañuy dem ci moom entraîné su ngoonee ñëw fii kon loolu cër la ba pare loolu muy def noonu bu ñu bu doon def Sénégal jëm kanam. waaw loolu tamit jaaxal na ñu bari parce que équipe bi am na course bi nga xam te moo yor xale yi mais dañuy gis xale yi ku ci am combat da ngay xëy dem ci Lac de Guiers mu taxaw la ànd ak waaw parce que xamul tax parce que ñun dañ ko defaloon ay magam dañ ko defaloon. tey man man damay liggéey su ma jógee fi entraînement yi fii laay génnee télé bi dem liggéey su ma demee fu ma liggéey fa laay sangu fanaan ne parce que xam nga ku fanaan liggéey boo ñëwee da ngay nelaw léegi nag matinal bi booy dañu balaa lu ci mën am lépp lu muy def damay woo lépp du def loo xam ne yëguma ko billaahi wala taala lépp lu muy def rek dama ciy woo doo ciy déggoog man du ñemul def loo xam ni moom mooy loolu combat bii bi ñu ay seen commencé de man dafa woo ne ma coach lan nga wax ma ne ko combat bi jël ko mu na ma li nga wax loolu laay def kon loolu sant yàlla mooy cër du xaalis mais cër moo da xaalis mu nekk ay xale yoo xam ne ay xale yu neex a nekkal parce que lamb dafa métti ba sama gis nga lamb bu may dama dem au fond waaw kon nag loolu sant yàlla la mais vraiment ay boo yoo xam ne vraiment mention spéciale daal. Mmh. xale yi fi nekk ëllëg ndax am nga yaakaar ak gëm-gëm ni ëllëg dañuy téye lamb ci euh, ci seen loxo. bu ñu toppee fi fi nekk nii bu ñu toppee bu ñu toppee seen mag. seen mag la te kër bu ñu toppee seen mag Alioune Seye numéro deux la bu ñu doon toppee. ñi fa nekk ay ñu mañ mañ ñu topp bu leen topé ñu dégg ñu dégg fa ay grand champion waaw parce que lam moom bo bëggee dégg-dégg xalé day top mak tarbi ko ram ci ay tankam gis nañ fi ku ci melni ni ñaabu ndaw papa boy jinne maji maji bi nga xam mo moo kérok samedi ay dofu jazz boy pire bëri nañ fa macha allah te ku ci nekk rek yaangi ngi li nga xam tane bi moy lool la dëgg dëgg sax bala dugg dara day wax ak Alioune Seye day wax ak Alioune Seye la dëgg dëgg ñemul def bu waré naan sax dina wax ne ko jazz lan laa wara def tey bu ñëwoo ñu ne ñu ne bu ñu wax doyen ci équipe bi Alioune Seye numéro 2 mooy doyen ci équipe bi man sax maa mujjee. tey daa am loo xam ne da koy réglé man balaa maa ñëw. bu ñu wax doyen doyen dëgg moom mooy mooy doyen. sama problème mooy man lan moo tax lan la quoi. lan mooy problème bi. mi ngi entraîné koo xam ne chaque jour ko jëfee mu ñëw saal. même boobu dafa fekk benn nit sax da nga koy fekk mu ñëw. mais kon sant yàlla mais nag naa ko xamal carrément ñàkk ju réer. at na moom boo bëggee dëgg-dëgg. jàppale suñu borom def rek mooy li gën. sa bu sa wërsëg bu ci nekk rek nga jël incha allah. lan mooy jafe-jafe écrit bi. mooy moyen. moyen nag amu fi. amu parce que booy dañuy demee seen jom rek ak seen ngor mais moyen amu fi. billaahi walaay taala écrit bi moyen fi. booy xoolal dañuy dayee seen ngor. gi nga kële ne moo ñëw indaale ndox mi. jënd sa seen ndox indaale. mu defee booy mhm. mais ndimbal am fi. billaay walaay taala bu ñu fa bu ñu fa ndimbal boo xam ne lamb dañ ko téye amee yeneen ndimbal yeneen booy yi am nii su fekkoon am nañ ko dëgg dëgg dëgg néew ma néew ma néew ma néew fi ma demee dañuy téye lamb ji amee. billaay walaay taala ndimbal maa ngi def trop. mais euh, écurie bi amul ndimbal amul ku leen jàppale mais néanmoins tamit ñàkkul ni écurie bi am nañ kees bu nga xamante ne bii xale ku ci bëri nga am loo dugal pour en cas ëllëg. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga lamb lamb xam nga fan la toll mooy mooy nga am nga nga am nga am am base sa koñ. liggéey bi nag am na kees. Mm-hmm. parce que problème mooy booy dañuy cotiser fi mu toll nii muy wax ni sax booy fi mu toll nii dañu ñu ngi cotiser fi maa ñëw jëkkoon laaj ndax booy si ngeen parce que ci école bi ñu nekk tamit léeg-léeg am na ay détails xam ne dañ ko soxla wala am ay buntu fi yàqu xam nga am ay détails yu yàqu ñu ñëw participer. Mm-hmm. wala ñu am ay cérémonie ñu ñëw participer parce que nit bu la joxee këram. tamit léeg baax na léeg ñu am yéen nga xaw gégis yéen jafe-jafe ci kër yi nga ñëw investir loolu dafa am solo ñoo mi lu mel ni amul ci géejawaay te ñoom bu ñu sant yàlla ngi participer di mais ndimbal rek la ñu leen parce que bonne volonté ni géejawaay yëpp ñi dugal seen loxo bariwul waaw bariwul xanaa suñu maire bay di ba ko boobu ci am combat la boobu ci am combat da euh, mi ngi nii may jàkkaaroo waaw xam nga xam nga moom day doog a ñëw te kuy doog a ñëw a situation yi nu mu demee xam nga nu mu demee la ñoom nuñ comprendre parce que ñëw na ci écrit bi ñëw na fi ñaari yoon vraiment mais day doog a ñëw mais kuy doog a ñëw nag dañ ko comprendre xam nga day doog a ñëw ñu ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm lépp lu mu bëgg si géej waaye tamit suñu borom ko waaw mais suñu maire Bay di Bal vraiment di ciy dugal loxoom bu baax a baax quoi. am na solo loolu entre parenthèse loolu mais tamit ci biir écrit tamit dafa mel euh, comme comme Alioune Seye 2 ni mu amee jafe-jafe euh, ci am combat kii di ténor tamit di la di gerte de de tamit des fois da koy jànkoonteel. waaw maam day xaw a soriyantu. waaw mooy li ma nag Alioune Seye numéro 2 buy li li mbër ci stade bi. billaahi walaay talay. maanaam nit ñoo ko bëgg de yàlla tax li mbër yu mag di dugal ci stade bi loolu lay dugal ci stade bi mais mënu ma xam lan la. mënu ma xam lan la. mënu ma xam parce que la dëggee numéro 2 chaque jour ko jëfee gis ko day entraîné. entraîné la bëgg la dëggee dem entraînement métier la bu xëyee day dem entraîné ci. doo xam lan la doo xam lan la. mais coow li nag bari na fan yi ndax Siteu Papa Sow bi coow li bi combat bi jàllee coow li bari na ñu bëri ñu ne Siteu ak Lac de Guiers numéro mooy combat bi en tant que coach Lac de Guiers numéro 2 noo gisee combat bu waaw xam nga dañ ne grand contre te làmb loolu moo koy doxal. Siteu c'est un grand champion. mun nekk mu ko nuyu passage mu nekk xale bu bu yaru. vraiment bu joxe cër di nuyu tamit manager Maxime Bergane mu nekk tamit grand boo xam ne bu baax nee naa Maxime Bergane man fu ma ko mu ñëwee làmb su may xam nga dama koy wax xam nga ma fonk trop jox ko cër mais Siteu dafa liggéey ci làmb boo xam ne gars yi war ko mën a may loxo mais comme la déggee Siteu dafa a mën a bëree que nga dafa dafa a bëree ak moom xale la def na ay preuve am la da dëgër bëri nag dan dan dan dan na Papa Sow si de dan na Papa Sow mais lamb bool ñeneen war nañu mën a bëri xam nga la amul benn problème ñun par nañ bu bëri combat bi en tant que en personne moom pour digganteem ak euh, Siteu mun la d' bi ñu bëreeg Siteu bi mu bëreeg bi mu bëreeg Papa Sow bu su suba laa wala Lac de Guiers ko xam ne Siteu yow lay bëreel bu ñu bëri bëri bu suba laa wala Lac de Guiers man ko Siteu mii yow mais da xam ne Siteu dafa war dem ci kaw te vraiment buy jóg daanaka àdduna àdduna lay indi. kon dafa war dem ci kaw. mais xale la boo xam ne yar na jox na cër dañ koy may loxo. bu bëreeg moom. mais taxawee tamit euh, mbaa du xaw a kii. comme nan. am tuuti risque. waaw mais lam moom boo bëggee dëgg lépp risque la. parce que nit moom bu xasee ba mat cent wala mat quatre-vingt-dix kilos xam nga lu wax jël sa avance ànd ak ay mbokkam jàppal ni moom. dafa pare pour daan la nit moom. xam la fi mu loolu nii dafa pare pour ñëw daan la waaw ñun nag ñooy taxaw làq suñu koy dañu war a liggéey ñu liggéey ko. mais gars yi ñu bëri tamit Lac de Guiers combat am euh, koy namm mais moom daal engagement yi day xaw a des tuuti quoi. waa waa mais waa mais waa mais nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi seen problème mooy mënoo leen comprendre mais Lac de Guiers combat yu bëri day ñëw day ñëw bëri mais lan lañ bëgg lamb tamit doo ñëw wanteeru doo ñëw nag bëgg ñu ne da nga ñëw bëgg a jeexal lamb ci. mais li mu war a def koy def xam la avertir ñu ko dara ci biir géew bi dañu enchaîné dañu taxaw bëri li mu war a def mi ngi koy def mais nit ñi mënoo comprendre mais léeg-léeg nit ñi day am benn moo xam ni ah doo comprendre quoi doo xam lan la quoi. dañuy dégg rek jëf takkale benn taas boo xam ne sax doo comprendre mais loolu xam ni doo sax comprendre quoi doo comprendre. mais euh, ki muy bëreel ki mu bëgg a jël boog muy Siteu xew na si jamono yàlla miin te ku ne xam na Siteu bi ñu xamoon ak bii léegi am na différence. waaw mais dëgg la mais nag soo bëggee soo soo bëggee dëgg-dëgg yàlla nañu ko yàlla defal jàmm rek ba combat bi taxaw. waaw combat bi daal boo bëggee dëgg-dëgg incha allah rabbi ñun daal xale la te suñu suñu rakkal xam nga ubbi ko bunt yëpp. ko bunt yëpp. ubbi nañ non ubbi ko bunt yëpp. ubbi nañ ko bunt yëpp. Hmm. xew si jamono de. waaw moo tax ñu ubbil ko bunt yëpp. te léegi ñibbi na ci ay mbokkam. waaw moo tax ñu ubbil ko bunt yëpp. waaw kursu nag yaa ngi laqatu kursu li ngay def. ah mais mais mais mais ay mbokkam. waaw ngi ci mbokkam te xale la mi ngi liggéey. parce que combat boo gisee xam ne daf progressé. Hmm. xam man man damay wax en tant que euh, dama wax en tant que far. maanaam damay wax logique. Hmm. parce que combat bi dama gis mu progressé xam nga la mu am changement quoi man damay wax xam nga dama wax logique quoi gis naa mu changer si. ma gis ñu ko indi xam la ak ginnaaw gi ma gis lépp tegu ci yoon. mu ñëw teg bakkanam ci làmb ji. yàlla maa ci làmb ji gis naa li fi xew. ko war bi ko dar ak lépp. léegi nag problème man xam naa ne changé na. xam naa ne actuellement matière am na fi mu bëgg a teg am na fi mu teg bëtam. mais nag ñun ubbi nañ ko bunt yi. gis nga xeetu jële bi mu daan euh, Papa Sow. am na ñu des. waaw waaw daa mën mën parce que bëri la parce que njool njool saa boo ko daqee da ngay surux njool ndaama du dàq njool ndaama du dàq njool parce que Papa Sow tey d'accord mais li mu mën dañ ko xaarloo parce que mbër doo mën bëri lay xaarloo Papa Sow tey combat bi mu ne tëg dafa ndox ci ko waaji ba seer bi lu mu am jël mais waaji war la suroo nga pare ñu lay xaarloo loolu dafa juum foofu dafa juum am parce que Papa Sow man sax dama jàkkaarlu ba am ni prix combat bi da ngay fii ci di teg tànkam da koy fekk mais xam nga bu négocier combat bi xam a gars yi parce que Papa Sow bëgg na dem mais gars dañ ko téye dañ ko lii defal ñu lii mu defal leen ko mais njool kenn du ko dàq boo ko dàqee rek da ngay surux non kenn du ko dàq ñoo gën a mais Papa Sow ba ni bu defoon teg tànk fu si teg tànk mu teg fa ñu bëre Papa Sow dañ ko xaarloo te loolu du yoon loolu du bëreem maanaam li saa boo ko jëmee loo xam ne mënu ko rek mu juum da nga ko defal loo xam ne mënu ko mais bi nga ko defal loo xam ko day juum waaw kon moom Lac de Guiers numéro ko nii nii du ko tal ci combat bu non yàlla na def jàmm ba taxaw rek Lac de Guiers moom kenn du parce que chaque jour ñu ne amu ci morom. kon kon jeex na kon li ci ginnaaw nag moom dañ ko exploité mm-hmm. rek yàlla defal ñu jàmm. combat bi moo gën si ñun wala mu gën si te yàlla na ko yàlla moo tali. ñu dugg si bisimilah rahmaani rahiim gën si alhamdulilah lu koy jeexal yàlla wala ju bari wala xeex wala. yàlla yàlla def jàmm rek ba mu taxaw. Ah, non xoolal bu taxawee. dañ ci waxtaanaat. Ah. ubbil naa la bunt yi. Hmm. bu taxawee. ubbil naa la bunt yi. ñu ñaan suñu borom def jàmm. Hmm. mais nag Alioune Seye numéro 2 gars ci wax. waaw le temps. gars yi nañ ci wax de. mais yi ñu ngi coow nag diggante ma Garga 2. non nañ ci wax rek. Ah. waaw combat boobu nañ ci wax rek. nañ ci wax lu jaadu rek. ñu bëri. jeex na yàlla yàlla def jàmm. ndox bi ndox bi yaay borom. waaw xamal naa leen de. Mhm. kii moom daa bokk ci ñun. lii. Mhm. lii suñu ndox la. ay doomu ay doomu réew mi ñoo ko fi kon nag ñun nañ si jàpp. Mhm. xamal mu lax may ko loxo mu dem ca kanam. yàlla yàlla def jàmm. au Casamance lañ. merci beaucoup Dof Dia ziar naa la. waaw maa ngi dool ziar. lépp jàmm lépp jàmm kay. maa ngi lay fekk Igri Wal mais yaa ngi contact lu méttee métti. naaj bi laay maa ngi liggéey lu métti kay. daa mel yaa ngi préparé. maa ngi pare combat waaw le 4 décembre. le 4 décembre yaa kan la. Thiaw Essar. Thiaw Essar bu Bawol. waaw bu Bawol waaw. Oh. Mhm. mais xam nga adversaire bi. xam naa ko nii rek xaw ma ko bu baax nag. Mm. waaw xaw ma ko bu baax moom mais dégg naa mbër la daal champion la. mais loolu du ëral jël koo xam te ne xamoo ko yéen du ëral parce que ñun suñ demee di bëre tournoi ñi ñuy bëreel duñ leen xam dañuy tirage rek ñu la yaag diw la. Mm-hmm. soo tàmmee bëre loolu adversaire yooyu du la jaaxal. Mm-hmm. xam nga li bu baax da naa ko bu baax daa am lu ma ameel samay supporters surtout waa yëmbal. Mm-hmm. moo tax instant yii nii caaxaan waruma damaa war a ñëw prouver wane lu wóor. suuf soufflé ma jàpp ko daan ko. Mhm. waaw. naa si yow. waaw ñoo far amal jàmm rek di woo waa yëmbal yëpp. di leen wax ni combat bi seen combat la ñu ñëw jàpp si suuf soufflé ma jàpp ko duma ko daan ko incha allah. tamit yow tamit yaa ngi ci euh, contact yi di muy saf sap de. waaw waaw ñun moom xam nga loolu suñu appétit ko quoi ñun amuñu xaw xaaruñu combat ak ñaax am combat waaw ñun moom mooy lool chaque jour rek ñu nekk ci waar bi rek ndax suñu métier la waaw. depuis ce koo Kogna doo laa mujjee bëreel. mujjee bëreel waaw. boobu tey bëre waatoo. waaw mooy journée Ada Fass kii bi. qualifié uh-huh. bi boobu laa mujjee bëre waaw. boobu lu gars yi ci yow. waaw ñu ngi wax ay combat yoo xamante ne xam rek. Uh-huh. waaw mooy loolu arrangé wuñu daal. arrangé guñ joxaguñu adversaire bu ñu arrangé daal. Uh-huh. waaw li ñu war a li ñu def ci làmb joxaguñu cër boobu. mais kan nga jàpp ni kat mooy sa adversaire ci biir làmb. waaw mën a kaaw gu ren laa mu dàq ko. waaw mais Kaaw est-ce nekkul lu mu def ci écurie bi nga bëgg a fay. no du question la def ci écurie bi li mu def Baye Ma du question boobu xam nga Baye Ma dafa juum rek. mais man moom chaque jour ba heure ba ba nii may wax ak yow li may jàpp mooy Baye Ma Ndiaye moo mun Kaaw gu waaw man loolu laay jàpp xam nga nag mbër bu amagul defet xam nga calculam du bari. waaw moo tax chaque jour pour mu def erreur day yomb. man na ni lolo ko dal ci combat bobu mm. mais fekkon ni mu amé defet ni la jël euh, Baye ndjay gëm naa du ci genn mm. du ci genn kon dal fi tol yaang ci entraînement tok di xaar combat yu logique nga jël. combat yu logique. Mm. combat bu ñu jox ñu jël. waaw man ak Giro Seras lamb la. Giro waaw. waaw waaw boobu ndang bobu d'accord na. waaw yoy yëpp lamb la. Mm-hmm. nañ jox gaay waaw nañ ma jox Giro Seras. Giro Seras waaw. a part Giro Seras. waaw adversaire ñun mo xama moy mooy man. lamb ju amateur yi d' accord. barki alxuraan man aw ma problème adversaire yooyu noonu. Uh-huh. man taamu ma nekk ma fii kii mais tamit. mënoo di dëkk ci dëkk jël lamb yoo xamante ni risque la waaw. treize combats laa def. dix victoire trois défaites. keneen kan la daan. Euh, deux Ziga moo ma daan. ak Loobu Yoff ak Gibson bu taay singa waaw ay mbër waaw xam nga ñu jugee fa nekk ci suñu dynamite bu baax ba ñu jugee ci loolu ba léegi quatre victoire lañ tegalee. saison daaw dañoo ñëw def trois combats trois victoires kon heure bi waroon na fekk ñu jox ñu adversaire bu baax bu ko yeneen mbëri defoon ba léegi kenn waxatu ko xam nga mbëri fi nekk tegale deux victoires ngay tegale ñu jox la ay adversaire yu baax mhm. mais pourquoi ñun mënu ñoo boole ci làmb duñ jox ñu morom mais chaque jour ñun ñooy maye sens xam nga loolu mbër mënu cee dëkk waaw essence bi jot na nañu may sens ñu génn ndewoy ndewoy ndewoy say maane